moom mhm. euh, su ma sañoon euh, vraiment duñ duggee foofu parce que man dama gëm ni daam doo ñu masawu euh, non attends rek der der bul ma orienté yow koy posé nga moom bàyyi ma <laughs> ma ñëw rek parce que kooku bokkul sax ci waxtaan wi mhm. <laughs> mais man je trouve que man nekkuma ci débat stigmatisation mhm. dama gëm ni man li may ñaawlu rek mooy am na yenn wax yoo xam ne mën nañ koo éviter des des deux côtés quoi man dama jàpp ni ku ci nekk li ngay wax danga koy assumer mais mën nañoo bañ a yegg ci yenn écart de langage yi rek man loolu rek laay wax mais maintenant euh, ku ci nekk da nga am sa xalaat euh, ci ni ku nekk ni ngay doxalee parce que man mii di wax ak yow damay toog sama soxna ni ma yow euh, munoo wedd ni Pastef nga bokk sama soxna ci boppam. te pourtant moom dafa may wax ne ma yow leer na ma ne amoo carte de membre Pastef amoo également bokkoo benn instance su Pastef mais daf naan ma yow Dame pour nga weddi ni Pastef nga bokk dina jafe. kon nit aussi mën ngay def dara mu am ressenti fekk peut-être il peut se tromper ou il peut ne pas mais xalaatam la man dama jàpp ni euh, réew moo mun a dem euh, débat boobu day am yow buuba xam nga ne aux États-Unis am na ay médias yoo xam dañuy leen di estampiller pro-démocrate ou pro-républicain et ça ne dérange aucun Américain ku ci nekk ngay assumer say position maintenant néew ma kii fee la féete wala kee féete fee la mais moi je pense que euh, vraiment il faut ñuy assumer ku ci nekk say position ñu xam ne démocratie lañ nekk ku nekk day wax xalaatam mais xalaat boobu bu ñu ko àggale fu mu àggul man daal vraiment sur cette question là loolu laa si bëgg a wax di wax ni seen une question très gênante parce que bu ñu demee ba wax ci ay wax yu ñaaw Euh, tey média yi euh, pas média yi mais réseaux sociaux yëpp ku ci nekk di wax ñu am sax ay écart yoo xam ni man des fois ñu envoyé ma ko ci man jàpp naa ne jaru ko quoi cest dire que mën a def balle à terre ku nekk dama jàpp ne rek da ngay am sa position juum nga juumoo sa xalaat euh, kiiwul mais jàpp naa ne daal bu ñu àgg ci ay saaga ak di euh, di xotti worma ku euh, kenn ci ku mën a doon man loolu rek laa gëm ni moo ci am solo mais daal ku nekk posture bi nga am assumer ko. Mhm. Euh, ku ci nekk am nga droit am sa taxawaay muy ligne éditorialu presse. wala muy une ligne ligne parti wala coalition bu mu mën doon ku ci nekk am nga ligne loolu muy dëgg maintenant sa ligne boobu nag nit ñi dañ ci am seen xalaat. xalaat boobu ñu ci am nag man pour man wërta àgg ci taxaw di saaga nit parce que am na xalaat ci sama ligne éditoriale nee na man kee laa waxal wala kee laa faral ak et cetera kooku ay ressenti la rek man ku ma wax ne ma yow opposition nga bokk. te mënoo génne benn preuve que opposition laa bokk wala ñu tuumaal la yow ni pouvoir ngay jàppale te mënta génne loolu xalaatam la. donc xalaatam nag comme moom la wax man pour man soo ci amee yenn position yi day gën a yokk coow li day maanaam jaru ko maanaam koo xalaatam la wax rek. comme par hasard